الحشين معجمة والكاف وراء لراء أباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإهمال وراء هاي وميمي ودالي لا يزال له على الذي فيه بان الباء وراء هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو التاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به قاء ودالا وميم قبله عينا وباء ودالا قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوخا لميم وواو بعد تاء دالي وفائي وعيني كل أزمنة به كجيمي بلا من بعد daadu mujamatan warra ufaraqani wa baa bil xusni an ilqaau walbaau saadi wa daali wa raa'il yawma jaalahu ashiinu mujamatan warraau walhaau faa'i wa qaafi wa raa'id dahra munsarifun liman lahu al-aynu summa zaayu wa taa'u kaafi wa nuuni wa zaayi zikruhu wa bihi alxaa'u mujammatan wal yaa'u warraa'u ma'a allazi qalbu daahin jaa bihi fahadaa haa'an wa daalan wa yaa'an ba'da saa'u nuunan wa waan waraan nastadiu bihi mahma tara qalba bid'in akrim bi man xaaza duna al aqrabina maan maqluba barqin wa zaaka al xaau wal baau wajjahtu wajhi li rabbi بالنبي أبدا مني له القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء سادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء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 su ngeen déggee kàddu yi nag li ko waral du leen lu dul kàddu yi ndigal tukkee ci sunu jëwriñ ki nga xam ne mooy jëwriñu mbooleem waa jaspora bi muy sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu mel ne ñëwaat na fii ci Detroit ci Michigan ci United States of America ngir lan ngir ndigal li nga xam ne moo doon digalal sunu borom subhanahu wa taala di ndigalal yi nga xam ne yàlla du ko joxoon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wàcc ci sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikhul Xadim wàcc ci waay juróom wa Cheikh Mouhamadul Mourtada moom mii nag muy jëmm ji nga xam ne liggéey boobee ci loxo am lañ ko teg muy lan muy lépp loo xam ne day tax jullit yi ànd nekk benn rawatina taalibe sëriñtuwaay waaye lépp loo xam ne day tax ñuy dimbalante ci seen biir te yàlla rek tax waaye lépp loo xam ne day tax ñuy jàppale tut tànk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Amérique ak ci fépp fu ñu di nekk ci àdduna bi ci njàng mi ci lépp lu leen di yar ci seen diine ak fexe ba duñ dugg ci lenn loo xam ne da leen di yàqal seen àdduna loolu nag doon njariñ loo xamante ne bii njariñal àdduna ak àllaaxira la yitteel gu nga ko yitteel nag tax bi nga xamante ni bii tournée internationale bi jeex na ci la 20 nga xam ne dem na fépp ci àdduna bi ci tënk ngir gàttal wàññi ko fekk mu jóge fii Amérique bu yeggul rek dem tournée Europe del si waat Amérique ngir lan ngir taxawal loolu ngir ñu boo woo taalibe yépp yi nekk ci États-Unis wala nekk ci Nord of America ba Canada ñu war a daje si moom fii le 31 di samedi ak dimaas ndaje moomu nag di ndaje moo xam ne ab liggéey la di liggéey bu mag muy liggéey bi nga xam ne jàpp nañ ne ci yoon wii ñu nekk mu yoonu seexul xaddim liggéey bu ko ci gën a mag ñun gëmuñu ne am na ndax fii ci états réew la moo xam ne ku ne xam na ne li leen may doole ji nekk mooy bennoo boole seeni xalaat boole seeni xel boole seen doole boole lépp lu leen yàlla jox di ci jëfandikoo lu leen defaral seen àdduna ñuy itam nag fekk loola jàngaloon nañu ko bu yàgg waaye boo ñëwee ci réew mi am réew moo xam ne mën nga fa amee benn expérience boo xam ne ëndaale ko fi woon sun borom dimbali ñu am jëwriñ joo xam ne loolu rek mooy yitteem war nañ koo maase jàppale ca loola moo tax ñuy woo taalibe yépp fii ci États-Unis taalibe yëpp it nag confirmé nañ fas yéene ñëw ñi mënta ñëwit délégation yi ñëw teewal leen kon nag ñu xam ne bis boobu moom lañu waajal sëñ bi agsi ci jàmm agsi tey jii fii ci Detroit waaye mel ne agsi ci Amérique gépp ndax dañ koo defee ci Detroit waaye Amérique gépp lañ ko defee li waral ñu defee ko fee du dara lu dul béréb dafee nekk boo xam ne mën nañ ko fee defee te duñ ci fay dara loolu rek moo tax mu woote ko fi waaye fu ne ci Amérique mën nag faa woote ndax Pastef moom fépp la nekk ci états kon nag ñu xam ne liggéey baa ngi noonu ñu fas ko yéene waajal ànd kook sëriñ bi mu yitteel ko ba tax mu daggaati biir Sénégal ba siwaat fii ngir teg ñu ci yoon woo xamante ni bii yoon la woo xam ne buñ ci jaaree njariñ lay doon fii di njariñam te Sénégal di njariñ yoo xam ne dañuy fekk ba yowmal xiyaamatul bar te ñu suñ doom yi di ko jariñoo mu mel na nag léeg-léeg dañ naan nañ ko dimbali sëñ bi ci liggéey bi waaye dimbal googee suñ bopp la ñuy dimbali ndax buñ xoolee lépp li muy def wala lu muy dox lu mu ci man di doon ci ñun lay tourné waat ci ñun lay dellusiwaat kon nag liggéey bi suñu liggéey liggéey bi ñoo ko mën a doxal liggéey bi ñoo ko mën a yeexal moom nag wax na baat boo xam ñu ñëpp bàyyi nañ war nañ ca bàyyi xel muy wax ne daa toppoon ci gannaaw di seetaan léegi nag amatul sañ-sañ ba ndax ndigal dafa foor te lépp luñ la jox te jox la ca ndigal te xalifa général bi fi mu nekk ni muy sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ñu ànd ko ak moom ci liggéey bi fedd feddali liggéeyam bi ci suñ kanam mu wax ne mooy sama loxo ci bitim réew lu mu leen wax maa leen ko wax lu mu leen digal maa leen ko digal looleen nag doon loo xamante ni bii def na ab jàjj ci moom ba tax na mënut a seetaan mu wax ne nag kon lépp loo xam ne yéen a ngi ciy jaar tam dëppook ndigalal sëriñ Touba dama cay ànd ak yéen su ngeen ko wàccee ma fexe ba delloo siwaat leen ci delloo siwaat leen ci jooju nag nañ fexe ba bu ñu dal kon nag ñu fas yéene tegu ci yoon wa kon li ñuy def mooy gàttal te jox sëriñ bi muy yëkkati kàddu kàddu yoo xam ne day jëm rek ci woo taalibe yi ñu dajee si fii ngir waxtaane li nga xam ne mooy liggéey bi kon di wax mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ bi di la dalal jàmm fii ci États-Unis di la ñaan li nga bëgg ci liggéey bi sunu borom jàppale la ci barke Cheikhul Khadim salaamaaleykum wa rahmatullah. bisimilah rahmaani rahiim jërëjëf. jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu. di nuyu mbokki taalibe yi nekk ci Amérique yëpp ak mbokk yi nekk ci àdduna bi yëpp sax di eh, am mbégte itam ci siwaat gi ndax ni nga ko waxee doy na sëkk ndax ni ko waxee yaa ngi ko tàmbalee ci daanaka nu ko sunu borom waxee ba ci sëñ Touba mi nga xam ne moo nu jokkale foofu kon mel na ne du loo xam ne dañ ko dañ fi ñëw di fi woote ngir sos dara waaye ngir sof rek la sof gi liñ ci jublu mooy mm, mbir boo ca nekkee di ci liggéey sa àdduna sa sa sa sa àdduna lépp nga def ko ci sa doole yëpp nga def ko ci mu mel na yéen ñu fi nekk amatu leen ci seen bopp dara muy guddi ak bëccëg yéen a ngi ci liggéey bi ak di xalaat lu ko yokk te dara jëmu ci loo xam ne ci seen bopp la te li ci ëpp te itam muy loo xam ne lu fi war a sax ba faaw la ñëpp war koo jëriñoo kon defe naa ne loolu euh, day nekk leneen loo xam ne ku ci def wala nga di ci sonn doo ko doo mën a doo ko mën a jàppe ab coono loolu nag moo tax bi ñu waxoon ne bu bu ñu demee ba mu jeex danañ fi delsi euh, gàtt na lool ndax bët ki dem rek lañ ñëw wante nag euh, dafay liggéey yoo xam ne damay wax ne euh, noppalu bala nga koo def bala moo neex dangaa ngaa waaye boo dee dëkkee ci noppalu moom du sonn doo doo yëg coono coono du neex te te it ku seeg fekk ci yéen du du sonn loolu moo tax nag ñu ne kon nañ ñëw ngir barab bi li nga ci waxit noonu la amee fu ne mën nañ ko fa def ci réew mi ndax dëkk dëkk yëpp dëkk yëpp ngi jël seen alal di ko def ci loo xam ne ngir ngir barab boo xam ne ngir barabu lislaam la ni ko sëñ laa daan waxee te muy barabu sëñ Tuubaa kon fu ne mën nañ ko fa defee wante fii tamit nag am barab boo xam ne bu ràññiku la ñu ne woon ginnaaw bu demee bu wéy ñu ñëw julli fi ajuma euh, maanaam euh, daloo ajum aj bés ak kii bi euh, jumaa ji di barab bu yéeme it boo xam ne yéen a ko fi def ci seen doole ñu nekkoon nañ dajale nañ ñëpp ñëw ñu nekkoon ci ni ñu nekk ci réew mi yëpp ku ci mën a ñëw rawatina njiitul daayira fédération yi li ko tàmbalee New York ci sëriñ loo ñoom ci ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi fi ñu ñëw xool. ndax kat nag liggéey tamit boo ko defee muy lu amee solo nii waroo xalaat rek fa nga ci toll da ngaa war a xalaat bés boo demee ba nekkatoo sax mu nekk loo xam ne kenn du ko mën a yàq te àddina noonu lañ ciy xalaate boo defee lu baax da ngay fexe ba kenn bañ la ko yàqal te àddina te itam moo tax nag ñun ñu bëgg a ñëw toog ñun ñëpp ñu xalaat xool nu mën a ànde nekk benn Euh, fexe ba euh, lépp loo xam ne dana tax liggéey bi aw yoon gën a ànd gi aw yoon dana taxit kenn mañ cee bañ a dugal lenn lu ci bokkut it euh, loo xam ne mën naa am sax du léegi waaye mën naa am ñu ñu mën a am bu boobaa kon kenn du ko ndax sëñ Tuubaa kat ñi ko yàqal bari na te sëñ Murtala dafa daan wax. loo bokkul te kenn mënu la cee génne loolu dafa am dafa am. am na ñoo xam ne dañoo bokk ci mbir te dañoo bokkul ci mbir te kenn mënu leen caa génn ñooñu nag mën nañoo yàq lu bare ko defee nag ñun tam nag ñu gis ne kon loolu moo tax ñu bëgg a ñëw xool ñu waxtaan waaye woote wuñ nag ngir lu jëm ci sunu bopp wala ngir dajale mbooloo wala ngir dajale fi alal loolu moom yëkkatiwuñu ndax ku xool ci yéen moom loolu du ko yëkkati ku xool ci boppam nag mën naa xooleen noonu waaye ñun loolu bokkul ci suñu doxin loolu daal moo ñu yëkkati. kon ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ bi kon mbokk yi ndigal laa ngoog ñu ngi woo ñëpp leen xamal ne samedi la le 31 incha allah ak dimanche le premier ajjuma nag li ñuy ubbi jumaa ji incha allahu taala ci njiital sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtala muy ndam loo xam ne lislaam amaat na ko muy kër sëriñ Touba goo xam ne jumaa dafa am ci biir ñu war a ubbi jumaa je ngir tàmbali ci julli ajjuma te loolu nag mu amee ci moom mii ci jëmm ji ndax fii moom ni ma ko daan waxee rek sëñ Mourtala amoon na yéene dem fépp ci Amérique waaye ci saahir jëmm ji yëg siiw fi waaye moom it ba mu xamee ne ay taalibee nga fi te itam bëgg nañoo liggéeyal sëriñ Touba moom mu yegg si fi yegg si la fi liggéey bi ba liggéey bi fi ak si fi mu ak si tey kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dox daje samedi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.